añse ngeen de. ki nu gën a yërëm lañ koy jox ñu ne maam jaara ko leen bis gën mooy ci yi xool la ñaari couleur ko ragal dama ko laal. rose bi boo ko laalee bi daa dugal rose. waaw rose bi dugal vert. ñii ñoo ñam. ñii ñoom ñoo ñam. ndax nee naa kër boo ci dugg da ngay jaar ci buntu kër gi hmm. soo bañee say tànk yàq waaye boo jaaree si ñi boo duggee ci kër gi dara bi mais ñii ñooy xam ne ñoo nag bu ñëwee fii nga xooj ñoom lañ fi fekk te yaakaar naa lu ñu teel a teel a ñëw ba ñëwee ñoom lañ dëgg la kon bu ñu waxul si ñoom kenn du wax ci ñoom jeex na. tey seen bisu càmmiñ seen bisu ngeen sañ si ñëw toog mu ngeen koy wax. moo koy ñaanal wér ak gudd fan. baax na ci ndig la dëgg yàlla. koy ñaanal rek. yàlla na gudd fan yàlla may ko wér. macha allah dangaa yoru ba ni ngay waxee sax ci dolli yaa ngi. sant yàlla rek. ñaanal mm. suñu rakk ji. Mm. mu mu dugg ci say dégg bismillaahi rahmaani yàlla saxal ko fa. Mm. jubale ko ak borom këram. may ko njaboot bu baax kel ba tey jii muy toog comme ni yaayam toogee nii muy toog di teeru doomam. incha allah. muy muy xale dugg fi ah, ay waajuram jaar rek ay magam jaar foofu la jaar incha allah ndax sëy rek lañ ko sant yaayam ji samay nopp sëy rek la xam di koy ñaanal nag mu toog bay bay bañ koy indil goro bañ koy indil njaag loolu lañ koy ñaanal voilà ndax yaru na te nañ ko fañ ko war a jare réglé na yaayam yar na ko ay magam tamit macha allah kon incha allah dina sëy daal sëy rek ko sant. waaw ba dee rek. maa dégg ñaan yàlla daal yàlla saxal ko fi. Hmm. may ko fi bu baax kel. amiin incha allah. ngeen ngeen ko dénk. Hmm? Ah, Euh, moom tamit ku baax la ñu baax ñooy mën a ànd waaw moom dafa dafa baax moo tax mu xam ku baax yal na leen yàlla jubale boole leen ñu ànd sokkorloo incha allah. mais li nga sant est-ce que yaa dama bàyyi. <laughs> tarkaal la. Pape est-ce bàyyi. tey nga teew sa sa bisu doom am nga mbégte ak kontaante eh, ñaanal gudd fan ak wér gu yaram ndax xale yi mhm. maa leen yar mhm. te seen yaay ji yàqu ci mhm. bàyyi naa ñoom la ñu xale yu baax xale yu gore xaritu jullite ndax seen pàpp lislaam rek la leen yar xale bu ci nekk wàcc nga Alxuraan xamuñu kon bon duñ ko doxe duñ ko waxe amuñ bëriwuñ dugg dugg bëriwuñ taxawaalu mm-hmm. kër ga rek ñun rek mm-hmm. jàng liggéey topp am jom am fulla xam dimbalaate xam lépp man nag li may koy conseil bu xoolee ci maa yaayam ji mm-hmm. ah suñ kër gi wujjee am ko de maa yaayam ji yaayam def na ma yaay def na ma bàjjan def na ma lépp te lépp laa ci ñoo bokkoon benn jëkkër. macha allah yàlla dogal nag. ma yor ko lu du benn doom. ah sama jëkkër nag bëgg na ma yërëm na ma. doom bi mu am mu yëkkati ko jox ma. mënoon na koo bañ nag. waaye daf cee nangu. dañ cee ànd. waccee ma xale yëpp. ba xale yi nekk mag yi jëm xale yi xam fi ma nekkoon ñoom. ma defe ne tànk bi ñu dox bu ko doxee. dana sëy. dana sëy sëy bu rafet. ndax sëy lañ ko laaj te bañ toogee ba léegi si mat léegi mat ay ñeent kat ak nangam kenn jógut ña nga ca kër ga di nekk yàlla kon dana aw ci suñuy tànk samay gis-gisu bopp man xam naa loolu ndax ay sot xamul problème xam na kersa xol bi rafet na bañ na ko lu muy wax jooy la koy nopp la koy eggalee kon man am naa ci yaakaar kii di boroom këram nag li ma koy ñaan ah nañu ko teel ndax gisatul papa gisatul kenn sësul fenn na doon léppam doon xaritam dóor ciru kaayam teel ko te yàlla tax ndax sëy rek lañ bëgg yàlla defal leen njaboot gu barkeel njabootu diine yàlla yàggal leen ñu sopparloo comme asamaan ak suuf loolu laa koy ñaana te yaakaar naa ne su ma ko ñaanee yàlla mën na koo def daan na ko ko yàlla defal darja bi sallallahu alayhi wa sallam ah. oh. mooy yaayam kii de xam nga ni kum sëyloo nga sëy barki Seydina Mohamed kii ndabal jégg jeexal na ko sëy na ba toog tey mu jur doom yu baax yi ñu am bis bi waaye wax leen waay wala ñoo ah, moom ndeke Aïcha yar bi ñu gis ci moom lan la xam ci moom ak liggéey. suñu kër gi suñu kër gi. xale yëpp yar am jom am liggéey. bëgguñ dara liggéey lañu xam am jom am yar loolu lañ xam ñoom. te loolu leen seen papa yar. macha allah. yaay bi neex <laughs> <laughs> sama goro bi de. borom diwlin ji. te li garaaw daa ñëw rek aux ador hmm. sama goro bi de jaay jaatu. dama koy ñaanal. waaw hmm. dama koy ñaanal dëgg yàlla. Hmm. dama koy ñaanal di ko sant di ko ñaanal wér. xam naa bu mu duggee sama kër gi ba léegi dox fa dara ñàkk fay dafa dëgg yàlla njaay ba mu ñëwee fulle la ko. ba mu ñëwee wax ma it dama ko ne ay ba mu ñëwee dama ko ne ay bàyyi ma ne fi ñu ko jàng ñëpp ba ñu fi ma ne ko waa bu dee jabara la tax a jóg mu ne ma ne ko danga ko am fii moom waaw waaw waaw waaw fulla la ma wonit fulla waaw ñaanal rek yàlla jërëjëf xam na ko dugg sax kër dina tax a jaroon yow mi daa ko génne ko ci biti oui. ah Thiès nga jógee. Thiès danoo mën a sañse waaw. ana bàjjen. mi ngi nii. waaw jëlaat leen. bàjjen waaw ñëw leen kaa leen jël bàjjen. wa rahmatulah maa ngi ñaanal sama bisu doom bi tey di ko ñaanal yàlla jubale ko jëkkëram amiin may leen gudd fan ak di xamal Aziz Ndiaye ni ko am na jabar sama doom ji tabarkàlla macha allah doxul waxul kër ga daara la wàcc na alxuraan ñaari yoon barki yonent bi keroog bi sama càmmiñ nelawee di baayam moo yëg ca kaw terrasse ba moo ko wàcceel kaamil kër ga barki yonent bi laa lay waatal Aïcha wàcc na kaamil ñaari yoon daara ji ca kër ga la nekkoon déedéet waaw yàlla moo ko kii rek ci tiktok bi wiire ko ci mais Aïcha nitu diina dëgg la Aïcha mën na ñaanal boppam tabaarkàlla macha allah kaamil alxuraan da koy naan comme ndox di ko ñaanal sëyam bii yal na barkeel ndax ndeyam jiitam itam maa ngi koy gërëm di ko sant ba mu duggee sama kër càmmiñ ba léegi jey na ba doxul waxul xeexul xuloowul bari kersa buy wax ak yow ñee sa ñee sa ñaa sa say bët duñu daje mu topp ci magam jee di may mun a Siise nga xam ni may ne Maymuna mais mu fekk si magam la waaye jëkkëram la ndax may Maymuna ay rakam ak jëkkëram ay rakam yi mu bokkal ndey ak jëkkëram ñoo bokk benn baay rakk Maymuna Cissé yee samay doomi baay lañu ñëng lañu sant Maymuna Cissé mais doomu jiit la la ca kër ga sama mag gis ko bëgg ko takk ko boole ko Jeynaba Saw mii kenn mosu leen a àtte doomi Jeynaba yi ci kaw la lu may Maymuna Cissé ba lañu daan lañuy eh, jóg di fo di tëb di dal bu may mën a jógee ñu jóg topp ko di diree ko ànd ak moom teg seen yaay fee moom itam maa ngi koy félicité ci bis bi ndax contribuer na trop ci éducation xale yi waaw maa ngi leen di ñaanal gudd fan ak wér jéem ba saw moom itam maa ngi koy ñaan dafa bëggoon sama yaay dëgg yàlla dégg lu am ndig am am kilifteef maa ngi koy ñaanal moom itam <coughs> ah njaboot gi mu am ak Abdou ñi ngi yàlla ci yàlla teg loxo ci barke Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa bàyyi ay Rasool nitu dina ci lislaam la judd waaye nag inspecteur la académique dafa jàng français ba ni ar fonctionnaire bu mag la maa lay xamal lii asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu. waay bàjjan waay waaye li nga museur bàjjan. kenn du yow. joxal waaw madame la maire moom la de ah, asalaamaaleykum mhm. maa ngi leen di nuyu ah, di leen sant ci opportunité bii ma am tey parce que Aïcha mii néew ma lu ma ci mën a wax bariwul de waaye li ma ci mën a wax man mhm. ñi ko mën a wax bariwul ndax nag xale bu juddoo ci say loxo màggi say loxo ndax may mën a siise mais maag moom ñoo bokk ndey ak baay may mu ne mii nekk kër Abdou Gaye man duma fa jóg parce que ñii ñoo bokkoon benn kër muy ñi génn ay xale may mu ne jay na ba mii ñëw fekk si may mu ne siise doom bu jay na ba jur may mu ne siise la yoon jur rek la ko ëppalee ci xale yi kon tey lii bés bi buñ ko fekkee war nañu sant yàlla bu baax ma am benn seed lu may seede te sama bàmmeel tax ndax man gisuma lu ma këf ndax tiim naa Cheikh Ahmed tiijaan ñetti yoon ca Fès lu may wax rek war naa ko gëm te yàlla tax ndax du ma wax dara ndax nag xëj na àddina bi jamono ji fi ma jaar damay ñaan yàlla rek gowuma ne daal mooy sant yàlla ndax nag am na fu ma jaar kon du ma waxal nit lu dul dëkk may dégg lu bari ma am naqaru xol ma ne àddina di nit a ngi wax dama yàkkamte woon am lii pour wax kuy Aïcha ndax nag nit looy wax ne nga naan maa ko fekke dama ko fekke dund ko ak Aïcha ak sama mag Aïcha sama néegu mag ci lan lay tëdd Aïcha bu amee benn maa ngi giñ ci yàlla bala koo jox yéena ba jox ko sama mag ma fekke ma fekke su bu amee meew nido lay dem indi jox sama mag di jox yaayam maa ko fekke ndax maa doon tëdd ak moom ak sama mag ci néeg muy xale bu am yar xale bu ragal man damay toog sax di gis Aïcha tiit damay wax waaw Aïcha man lii lii xawma ko ci am na yar am na diine respecté na doomu aadama parce que man bu fekkee ne def sama mag day wujje ak yaayam ma mën a seede lii kon nañ xam ne xale ba baax na te nag ku ko yóbbu ci sa kër dina sëy ndax ndayam noonu la sëye jël sama mag def ndey def mag ba man mii respect bi ma bi ma jay na ba jox ak li ma mën a wax ci jay na ba sax sama mag mën na ko ci def kon jay na euh, Aïcha mii dama bëgg a wax ay mbokk jëkkëram ni leen dañuy ñaan ne seen xel dal ni ndax nag olof dafa ne ween du fen te nit ki li nga nàmp rek ngay gal te li muy gàll nag mooy li ndayam na li ko ndeyam nàmpa ndax ndax man pànk naa pànk boo xam ne su jey na ba ñëwoon si kër ga su jey na ba ñëwoon ci kër ga jël sama mag yi def fawukaay ma ma réglé ko ndax maa mag jey na ba kon tey bu ma mënee tey dama am xew Touba laa jóge Touba sama premier njëkk di soxna soxna Baali Mbàkke ma bàyyi fa xew tey bu mu am tey jii ñu tudde ko ma ñëw xam nga li tax Aïcha mii laa bëgg a wax àddina dégg ne macha allah dañ koy ñaanal yàlla yàlla ko yàlla lafal cat te xam ne lu ñuy ut ci saykat mi ngi ci moom ndax nag ñii ñaar ñii gëwuma Aïcha dina gis li ñuy gis te kenn musul yëngu kenn musul ne gux barke alxuraan ñaar ñi dama ne ndax dañoo amoon góor ku weex seen jëkkër weex weex weex waaye nag terewul gis nga seen kër booy dugg soo koluwul doo dugg ci kër ga boo muuruwul doo dugg kër Aïssa ñoom Aïssa ñii kon nga xam ne Aïssa wax dëgg yàlla boo jàng boo wàccee ci diine nga wàcc alxuraan kon nag wax dëgg yàlla joojo doom dal na xel kontaan nañ man nag ni ma am fu may egg ndax xam nga li may wax war mënul gaaw ndax li nga dund ak nit nga doon ñaan bés bi bu ñëwee bul tàyyi may ñaanal tey jay na ba mii li ngay wut ci sa njaboot gii di ko ci xaar yàlla nga ko jot soo ci jotee yàlla nga ko muurloo cër bii nga jox may mën a siise xam nga ne tey yow xam nga ne man awma ma jot mënuma ko ndax la may xaar mais dama ko fa basaw ndax këram la ndax ni nga def sama mag ndax nag man daal dama lay bàyyi ak yaa di lay ñaanal sa doom yii nga du du Aïcha rek de sa njaboot gii nga am yalla nga ko muurloo lépp loo ci muurloo rek yàlla na ko séq képp koo xam ne nawloo na la te may ñaan sa digganteeg may mën a siise mii yàlla na ci yàlla bu ci cat dugg ndax ba muy metti kenn fekkewu ko yéen ñaar kese la ba muy metti yéen ñaar kese kenn fekkewu ko may ñaan loolu tey yàlla na ko suñu borom gën a dëgëral ndax nag kii a nii xale bii taxaw nii moom lañ ko tuddee te sa taaw ko jur te su la neexutoon du am sa taaw moo jur xale bii te xale bii tey may mën a sii sa mais di sa aaw moom lañ ko tudde kon génne ba li nga liggéey nag wax dëgg yàlla ku ko waxul du gor yaa baax yaa gore yaa baax yaa gore ndax ay sa ñing suñu maam Khady Sow macha allah buñ ne waajuru bu jigéenu yaayu ay sa ñing kon kii suñu maam la kii kase moo mën a wax loo xam ne ñun dinañ ko mën a gëm parce que mooy maam te yaakaar naa mag yàgg na ak yàlla maam ñu ngi lay ñu ngi lay siyaar bu baax a baax maa ngi leen yàlla yal na leen yàlla fay ay si ñi de hmm. balaa ma leen a jox jox yaayam ak ay maamam ay si ñi ya maamam mooy nijaayu yaayam maamam bi jur papa na ba mooy nijaayu Jeynaba nekkoon jullit lool nekkoon. nit bu baax jël këram ba taxawal al birri oo taxawal def këram bi def fa daara jàngal doomi jullit yi ba tëdd tey gétt ardo ba nga tëdd tey ca gétt ardo moo jur jeyna ba bokk ci pami saxal juma bu tedd bi ay si ñing bu doon ne diine ci lawtan bala yàgg na dipp ci maam mboolem fu fu mu rek diine fa sax ak yar ak teggin loolu la fekk ci loolu la màgg ndeyam ji nag ba ma ko toogloo woon fa la toog bi la am tey muñ xale bu ndaw di fa muñ di am pétéranga ji kon ma koy ñaanal yàlla bés bii mu am ci doomam ji ndeyam maa jur yàlla na ci am lépp lu xawe njoortam sëyu Aysa bii ñu koy ñaanal sunu boroom yàlla na gën ci sëy yi bokk yaa ñu takk ci aras moo ko Aziz Ndiaye yàlla na leen yàlla defal njabootu barke bu tegu ci yoonu siraatal mustaqim ndax jullit moom lépp lu mu am diine ko gën te ci la fekk ay Aïcha social bi muy def ci maamam Ousseynou Sow ci la ko tàmbalee ki yaayam kon nag lii lu mu fekk la alhamdulilah rabbil alamin ñuy sant yàlla ci julli ci yonent bi ñun ñaan mboolem ku fi ñëw mboolem loo am lu la naqari yal na la ko yàlla teggil ku fi ñëw yal na la yàlla teggil say tiis ñibbi ci jàmm sëy bi barkeel bokkat bi gën ci sëy yi daraja Muhammad alayhi salaam salaamaaleykum wa rahmatullah